Euh, décision de justice en général parce que ñoom ce sont des hommes de presse mm-hmm. liberté wu décortiquer et remettre en question en cause commenter ouais. euh, moi j'ai l'habitude de ne pas commenter les décisions de justice mm-hmm. comme des magistrats ont décidé à Ziguinchor mm-hmm. sur le cas de Ousmane Sonko je ne fais pas de commentaire là-dessus mais ce que je sais c'est que euh, euh, dara bettu ma ci ni yëf yi di doxee Euh, ndax euh, li Pape Assane wax ne ki fi nekk euh, président muy Macky Sall. amul culture loi. moom mun na ko waxee noonu su ko neexee ah xañ na du ma ko sax weddi mais man damay wax rek ne dara bettuma ci parce que bu ngeen di fàttaliku ba ñuy voté ca jamono avant moom sax muy nekk président de la république dugg na ci bureau de vote. ñu teg ay disposition mhm. mu voté sans carte d'identité d'accord d'accord ku jaar ci yooyu nag mhm. xam naa ko bu baax a baax ñoo bokk nekk dans un gouvernement mhm. dama am réserve boo xam ne du tax ma def yenn commentaires yi mais man personnellement d'abord comme ànduma ak moom dara dara bettuma